ana xaddahana isxaq bnu mansour isxaq bnu mansour nettali nañu xaddahana ali bnu macbad almisri ali bnu macbad almisriyu nettali nañu xaddahana ubaydullah bnu amr arraqiyu ubaydullah doomi amr nettali nañu an zeyd ibni abi unaysata jëlee ci zeyd doomi abu unaysa an chahr ibni xawshab jëlee ci chahr doomi xaw doomi xawshab an abdirahman ibni xan jëlee ci abdirahman doomi xan an abi darrin jëlee ci àndandooru yonentu sallallahu alayhi wa sallam abu dar na yàlla gërëm ko anna rasulallahi naka yonentu sallallahu alayhi wa sallam na yàlla dappeetal ci moom xéwalam ak musalam xaala yonentu wax na man qaala fi man qaala fi fajri ku wax gannaaw bum jeexalee julli fajar wa huwa thaani rijlayhi fekk ma nga leem ñaari tànkam qabla an yatakallama njëkk muy wax ak kenn mu wax laa ilaha illa allah yàlla rek ay yàlla moom kot laa sharika lahu déet bokkaale di ko ñeel lawul muk mulk moom képp moom moom nguur gi walahul moom képp jagoo cant cant gi moom kot a ko moom yuxyi mooy dundal wa yumitu di rey wa moom ala kulli cheyin ci lu ne xadirun aji moom ala kulli cheyin qadir lu ne la mën dana ku wax lii ganaaw jullik fajar fekk yaa nga leem sa ñaari tànk te waxagoo kenn nga wax ku wax lii fukki ashra maratin fukki yoon xew mu ne kutiba lahu ashiru xasanaatin dañ koy bindal ca saasa fukki dañ koy bindal fukki eh, yiw wa muxiya fukki ñaawteef fukki bakkaar lahu ashiru darajaatin yëgatil ko fukki daraja wa kaana bés boobu ba bés bi di jeex dana nekk ci ndàmbu ndàmbu yàlla gu koy musal ci lépp loo xam ne luñ bañ la lépp luñ sib wa xarsin ak garde yàlla dana ko protéger mina cheytaani ci cheytaani walam yanbaghi du jaadu li dhanbin benn bàkkaaraan yudrikahu di ko jot fii dhalika al yawmi ci bés boobu amul benn bàkkaar bu koy jot wala bu ko mën a lor mën ko détruire illa shirka billahi ah xanaa bokkaaleeg yàlla ndax inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yacha abu isa al imaamu tirmidi nee na xadis ji xadis ju rafet la ju garib la ju wér la yal nañu yàlla boole ci woy zikar yi boole ñu ci ñim nangu seen zikr te boole ñu ci ñoñam ñi texel ñu ci àdduna jàmmal ñu ci jàmmal ñu àllaaxira texel ñu fa may ñu dëkkaaleeg yonentu sallallahu alayhi wa ci gën jaakawe ji illiyin jàppandal ñu ñu di ko gis fii guddeeg bëccëg subaak ngoon waxtu wu ne ci nelawak ci lu dul nelaw